ansubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñëw sante yàlla bu baax julli ci yonant bi sallallahu taala wa sallam ñaanal xalif général de mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te ñaanal mboolem kilifay diine yi cosaani ak yu aada yi ñu yàgg fi lool te euh, maa ngi yëkkati sumay kàddu di ci jiital sant ndaxit sant dafa bokk ci li ab jaam war di def ku ne xam na ni jamono yi metti na jafe-jafe yi bari na ba tax na kon képp koo xamante ni yaa ngi am wér-gu-yaram rek da ngay sant bu baax euh, comme ni nga ko waxee jàpp naa ni war na mat weer ñu gis ni am na jàngoro ju mag joo xam ne dafa ndar képp àdduna ñu tuddee ko coronavirus muy feebar boo xam ni amul borom xaalis la amul ba pouvoir la bokk amul ci lenn loo xam ni nit ki dina ci nekk ba tax nga jàpp ni jàngoro boobu jomb na laa dal yàlla dogal muy raam ba dugg ci dëkk bi bi mu duggee fii nag ci suñum réew yàlla dogal nit mu jëkkee ci suñu dëkk muy Touba Mbacké ah ñépp boole woon nañ seen doole seen mën-mën ak seen pas-pas pour àndandoo xeex ko ba alhamdulilahi rabil alamin ya fi jotoon na am wér na ya ko fi fekkoo nit te hospitalisé woon leen doon leen suivre jot am nañ ay information tey que ni ya newoon ci district sanitaire bu Daaru Marnaan ba yépp jeex na fa yàlla dogal nag fan yi am ci cas boo xam ne daf ñu bett muy cas communautaire boo xam ne déclaré nañ ko fi ba su ma juumulee waa ji évacué nañ ko présentement mu ngi à Dakar loolu nag tax population yépp jug àndandoo ñu war a boole xol yi tàppe xol yi denc këréel yi ak tendance yi amoon ci diggante yi ba ñu xeex jàngoro ji mu jóge fi loolu nag kenn mënu ko def lu dul nga tënku ci li nga xam ni moom la way kër docteur yi santaane mu di ak cet cet nag dara jiituwu ci raxas loxo yi ba mu set di moytu jaxasooy ëpp yi te génn bu dul génn boo xam ni tey war na mën a tax nga muy farata ñu moytu ko ndax loolu bokk na ci li tasaare jàngoro ji ndax jàngoro ji doonut luy dox nit ñi doy jox di ko yóbbu te ku na xam ne ni kaa communautaire su amee rek dal na ñeneen nit ñoo xam ne kenn xamu leen loolu nag ba mu amee impacté nañu baree bari rawatina comme ni nga ko waxee léegi daara yi ndax jàngoro ji wax tax na couvre fa ñu instauré ko fi tax na it état d'urgence am te buñ ne couvre fa joxe heure boo xam ni ku mu fekk ci biti way takk der yi danañu def seen liggéey ci yow moo waral comme ni ñu koy waxee dongo yu baree bari ak borom kër yu bëree bëri nag am ay jafe-jafe ndax koo xam ni xëy na guddi bokk na ci li nga daan liggéey ngir lijjanti say dépense wa ilaa dongo bi guddi bokkoon na ci waxtu wi muy yalwaan pour mën a lekk muy reer tey ji vingt heures bu la fekkee ci biti yooyu yëpp dootoo ko mën comme nag loolu am na ñun ñu am initiative xalaat ni kat même bu ñu amul ay moyens yu disponible am nañ ay partenaires yoo xam ni donte dañ lay jàppale nga booleeg la nga mën nga di ko def ndax ak jaamu yàlla la kenn wutu ci leneen moo waral man ci sama xalaatu bopp ak sama bëgg-bëgg bopp ak sama mën-mënu bopp ak partenaires yi ma am ñu may jàppale ah ñuy jug taxaw ni kat danañu góorlu ba man di jàppale sëriñ daara yooyu pour ñu toggal dongoy ay reer du loo xam ni sax xëy na lu ñu yomb la mais nag ñu ngi ciy waslu àq di ci def suñu kem kattan ba di ci jàpp ci loolu moo waral ñu initié woon pour di toggal ci daara yi nga xam ni léeg-léeg ñu manifesté wu ci ñun di xaar suñu solidarité ci loolu ñun ñu jàppale leen defal leen ay reer. bu fan yii di ñëw war nañoo dem côté teenu maam Seex war nañoo dem it biir kër ñang dañ koy tasaare rek mais ngiraan ne nag comme fi laa dëkke danaa jéem sama kéem kattan ba ñoom moom lu ma man diggante samedi ak dimanche ma koy def ci ñoom tey jiit xëy na sax du samedi du dimanche mais def naa ko jeeg jigéen ñaa nga fële di togg reer yi pour buñ paree jox leen ko mais bu dut loolu daara bu manifeste ñun danañ def suñu kéem kàttan fekk la fa nga nekk ak bàjjonu gox yi ak ndeyu daara yi pour ànd ak yow jàppale daara yooyu. ñun duñu xaar kilifa yi ndax it nit soo bëggee ñu dimbali la ba fekk si la ci ndax du ma nekk ca kanam danaa ubbi yoon keneen ku man ñëw continuer ko def ñu doxal mais boo nee rek damay xaar ñu dimbali ma pour ma def. kooku jàpp naa ni du projet projet da ngay fekk fu amul dara nga jéem fa def dara loolu mooy li nga xam ni man ci laay dox mais du ci kilifa yi ne ci dëkk bi ay partenaire ay xarit ay am di jàmm ñoom laay tàllal loxo toujours ñu di ma jàppale ñuy defar loolu xam nga aide alimentaire bi moom jàpp naa ni am na luñ ci doon déggandéem ndax comme ba nëga ni amuñ yenn information yi déggandéem rek lañ ci doon am muy nee nañu euh, dañ koy jaarale ci ñu amoon ay bourse familiale ak handicapé yi handicapé yi d'accord nañu non bourse familial moom ànduma ci ndax am na ay nit ñoo nga xam ni tey ñu ngi bénéficier wu ci bourse familiale bi te waruñu cee bénéficier wu parce que ñoom mënal nañ seen bopp ndax yàggoon nga fee dégg ay jamono ay ense ay ay ay tailleur yoo xam ni dugaloon nañ leen ci fichier enseignement bi ñuy fayee ko salaire alors que c'est des tailleurs am ñoo xamante ni dee nañ depuis très longtemps ñu doon fayee ko salaire ba gis nga problème yooyu amoon au ministère des finances yàlla dogal na nag bi président Macky Sall ñëwee lijjanti nañ ko ba ña nga xam ne dañ ca daan bénéficié wu ak réseau ba fam mais ñu réglé ko ba ñooñu ñetti nga xam ne war nañ leen sanctionné sanctionné nañ leen bourse bi comme ni ma ko waxee am na ñoo xamante ni tey buñ leen seetaanee dana mbir mi dana ñëw ba dem toor bépp ñu tegaat ko président Macky Sall alors que lu baax la ca bëggoon pour bëgg a dimbali askan wépp pour ñu mën a ànd xeex jàngoro ji ba freiné ko loolu nag su amee dama jàpp ni dana doon erreur nañ ko jaar ci administration comme nañ ko ca daan jaare jaar ko ci chef de village yi ak délégué de quartier yi quartier bu ñu ñëw délégué de quartier ba xam na ña fa ne xam na ña ko yayoo ña ko mérito ñu jox leen ko mais buñ ko jaaree ci ay bourse familiale erreur dana am am na ay bolum volonté yu indi état bi indi na nañ boole loolu yépp buñ ko dajalee joxe ko buntu kër bu ne boo ca dee am benn saaku it kenn bañ a waat ni atum mi nga xamante ni tey bokkoon na ci at yi gën a metti ndax lii am na ay ay ay ay séquelles yu muy bàyyi après jàngoro bu demee dana bàyyi lu baree bari ci secteur tourisme secteur transport secteur commerce dana bari ay problème kon nag loolu su amee ñu jàpp ni képp ku koy fàttaliku war nga mën a wax ne ayla yéwén man jotoon naa ca sama saaku ceeb wala sama bidon diwlin loolu daal bu dee bourse yi ñun d'accorduñ ci mënuloo ni lii moo fiy jëlee jàngoro ji wëlbatiku di seetaan ay nit di daje loolu seetlu nañ ko ci ñaari point fii ci dëkk bi benn bi mooy poste Touba foofu it danañ lancé un appel ndax am na ñoo xam ni dañuy jóge ci ay dëkk yu sori pour ñëw di fayeeku seen bourse su yàlla dogalee ñu ñëw bokkuñu ci 50 personnes yi ñu retenir dañuy obligé fanaan ci dëkk bi di entassé wu wëlbatiku du ñu ndékki du ñu añ du ñu reer kon am na ci loo xam ne bonne volonté it nañuy bàyyi ñoo ñu xel di leen dimbali ci luñ mën di xéewloo saa su jot ndax postu xayra bi ku ne gis na na muy mel sëñ baaru doli moo leen daan toggal lekk lépp moo leen ko daan defal mais bi jàngoro ji amee kenn ku nekk di moytu kenn ku nekk sañ nga jël say matuwaay mais am na bonne volonté yoo xam ni war nañ mën a jënd sax ay hamburger wala ay sandwich defar ko fekk leen fa jox leen ko mais ñu waxtaan ak association de jeunesse yi nga xam ne ñoo ne ci quartier yooyu pour ñu mën a régler la distanciation loolu bokk na ci lii mën a régler problème bi beneen bi ci toppit muy la communauté rurale le maire a fait ce qu'il devait faire dégagé na une enveloppe de 200 millions pour que ñu mën a dimbali askan bi moom bu defee li mu war a def ba pare population yi nag ñooy dimbali nit ñi ndax mënoo bu ñu ne séddale kenn ku nekk jug jàpp ni par force da nga war a am boo toogee fa nga war a toogit di nga jot sa wàll mais départ dem daje ca commune ba alors que commune bi commencé gu la joxe commission yi ñoo doon daje loolu it amul sens na ku nekk doyloo délégué de quartier am commune bi ña ngi tànn ñu jiite war a jiite joxe bi war a jiite dimbale bi ñoom it nañu xam ne liñ leen jox jàpp nañu ni ñoom buñ ko amoon danañ génn seen alal jox ko doomu aadama yi bu ci kenn naa ci profito changer sama oto naa ci profito peinture sama kër wala naa ci profito def ci loo xam ne bu ëllëgee yow en âme et conscience soo tëddee di nga xam ni lii fa nga ko amee woon lewut te jaaduwut te nit ñi nag ay boroomi xel lañ dañuy xalaat seeni om mën nañ koo sukk mais seen mu xel du sukk ba mukk kon loolu it nañ ko bàyyi xel waaw li ñuy jeexale mooy comme ni ñu ko defee woon di sant bu baax le ministre Alioune Sarr di sant bu baaxit bon bonne volonté yi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñu ñuy accompagner pour que suñu projet bi ñu mën ko finaliser yàlla nañu yàlla jàppale ba li nga xam ni mooy Covid bi génn ci réew mi nit ñi delluwaat seen i activité ci jàmm ak salaam ñi nekk Dakar tëdd yàlla na leen yàlla yëkkati ñu jug ci jàmm secteur yi nga xam ne paralysé na yàlla na leen suñ borom taxaw di wax ni nag nañu àndandoo ñun ñëpp ndax it Covid mën na fi jóge mais leneen des fi ndaxit bor yi nga xam ne amee nañ ko dañuy ñaan comme ni ko Macron defee église bi def ko nañu ñaan les organisations monétaires yi nga xam ne Sénégal séqoon na ak ñoom ay crédit nañ ñu jéggal te xam ni jamono bi ñu nekk nous sommes un pays sous-développé mais qui de développement far bi dal ngi crédit yooyu ñu leen ameel nañ ñu ko jéggal pour ñu mën a amaat survol bu normal ndax bu loolu dana bari secteur yu paralysé te su paralysé day wàccaat ba ci askan bi te loolu mooy freiné waat am réew lii daal lañ amoon pour jeexale ko